Moustapha Fall mi fu mu bëgg a àgg yàlla na fi yàgg àgg te wér te mu ànd ak wér suñu borom defal leen dooley poos yéen ñu koy indi te mu ànd ak wér lu njiit nag njaaga te maam benn maam benn xambataal bi ba cin li wañax dañoo wax ni baa sa ñeex ku sa yaay tuur sa cere nga maq sa ñeex lii démb la woon du tey ab jeeg war naa góorgóorlu bu baax ñoo ngi koy jégglu auzu billahi mina seytaani bismillaahi sir xufraani wa sakuur ci barkeb am Hamdi Moustapha Abdou Sakour min nii lahoo anfaxal hamdil wa sakuur saa xidmatin lil Moustapha Abdou Sakour min nii lahoo anfaxal hamdil wa sakuur saa xidmatin lil Moustapha Abdou Sakour ñu ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbàkke yàlla fi doole yàggat loolu ànd ak wér di ko ñaanal sëñ Amdi Fall Modou Mbenda xalif général de Baye Fall waaye di ko ñaanal Cheikh du Fadilou Fall mi nga xamante ni mooy xalifa sëriñ Abdou Sakor Fall waaye di ko ñaanal sëriñ Moustapha Fall ibnu sëriñ Abdou Sakor Fall sóoru maam Ben Ndiaye yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér naka ñëpp wax Cheikh Moustapha Abdou Sakor yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér. liggéey bi muy liggéeyal maam ci biir réew mi ak bitim réew yàlla na àggale lépp mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew. donga yi ngeen gis ñu yëkkati xasida yu neex yi donga yi ngeen gis ñu yëkkati alxuraan yu neex jii donga yi di tur di tudd turu yàlla wu neex wii donga yi di bàkk baay am di faal may doomi soxna mbeen Ndiaye yàlla na gudd fan taraw ci njëre Ndiaye di dongay sëriñ bi sëriñ bi yar leen tarbiye leen li nekk ñoom yëpp mu def ko ci ñoom mu teg leen ci loxol sëriñ mu Moustapha mbay mi yaaram ñu nekk ca daara jee fee umul xuraa di sàkku ngërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla ngeen am ngërëmu sëriñ bi ci barkeb sëñ doole dooley maam Cheikh Rafal di siyaare mbooleem kilifa yi fi teew yëpp rek di mbokki sëriñ bi sëñ Moussa Ndiaye ngi nii Guy Ndiaye di mbokkum sëriñ bi sëñ Moussa mbay mi ngi nii Baye Jibril Kan di doomi Baye Mbaye Kan xandi Baye Rijal Ñang ak daayira bi nga xamante ni ñoom umul xuraa lañ jóge tey jii ñëw dajale seen jëf ñëw jébbal ko sëriñ Amdi Moustapha waaye Baye Amdi Moustapha daa raw tey tey rawale Baye Moussa Baye Amdi lantinoor la waaye nee ko sunu maam jee waxee Njaay mooy dëgg demoon naa cuurul tooru Baye Buri Njaay waaye nag ya bari lool waaye samba mën a ràññee waaye ku sa yaay togg reer doo jooju doom du fande liggéey bépp rek maam Ben Njaay moo ko liggéey ci kër sa sëñ Abdou Sakkoor waaye sëñ Abdou Sakkoor moo ne woon Moustapha laay caatloo daal ni dina gudd fan dina fi dina liggéey yàlla yàlla ko ànd ak liggéey bi muy liggéeyal maam ci biir réew mi ak bitim réew yàlla na àggale lépp naa islam bépp rek mboolem xalifa yi ku ci am ku ci amoon rakk ju mel ni Cheikh Moustapha di nga bég ku ci am rakk ju mel ni Cheikh Moustapha di nga sant waaye Cheikh Moustapha moo seexal ay magam waaye Cheikh Moustapha moo féexal ay magam waaye Cheikh Moustapha moo noppal ay magam waaye Cheikh Moustapha day pees bu raar ci yoonu murit waaye day pees bu raar ci yoonu Baye waaw ku serafal ameel bor boo dajee ak sóoru maam benn Ndiaye mu fay la wax naa ko sànq maam Yacine mbay Ndiaye moo bokk ak maam bu Ndiaye maam Yacine mbay Ndiaye soxna Ndiaye Ndiaye soxna Roqaye Ndiaye soxna Ngaye Ndiaye moo meññ maam benn mi maam benn ñu dénk ko sëñ Abdou Sakkoor ci suñu nop mu suñu jàmbaar jii muy Cheikh Moustapha Abdou Sakkoor borom mbekte mi Cheikh Moustapha bu dee ree ma ngay joxe waaye bu dee mu ñëwal jege bu ngeen toogee te kenn laajul mu berndeen lu fa Touba Linguère ka gën ndey gën bàyyi gën rakk doom billaay sóoru maam benn Ndiaye doo maas ndax échantillon la ci yoonu baay Fall waaye Cheikh Moustapha day pees bu raar ci yoonu Baye Fall ay yitteem yëpp rek mooy kër Serigne Abdou Sakkoor gën a gën a yëkkatiku ay yitteem yëpp mooy magam ju baax ji am ndam muy Cheikh Mamadou Fadilou Fall lu ko mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew jox ndax adduna bi ñu ci bari ñi ngi béggee Cheikh Moustapha waaye mu Moustapha jikkoom mel na ni ak juddoom waaye du daw ku jug di sàqum koom waaye sàqum moom fees na njuróom ku ñëw mu delloo yërmande ma ni woon Baye Amdi Fall may doomi soxna Mbène Ndiaye yàlla na gudd fan taraw ci njare Ndiaye déglu maamam ndax man xam naa ko Cheikh Moustapha Thiat ma sant Fall wóolu naa ko waaye wàllu ndeyam maam seeni bu njaay moo di maamam waaye ña nga boobu fa njariñoo di yaaram ndigal lii nga xamante ni sëriñ tubaa moo ko joxoon maam Cheikh Rahim muy koor gi muy tabaski yi ak màggali ak gàmm yi ndigal lii ku ne xam na ni jëf ji tedd na waaye ku ne xam na ni jëf ji sell na ni mu ko jëfee ci koor gii nu génn nag nagi xabban yoo xam ne bu ne jar na un million mu jëbal ko magam boole coog ñaar fukki million jëbal ko magam magam ju baax ji magam jël ko jox ki fi nekkal sëñ Tuubaa te Cheikh mun Mountakha nee na sëñ Abdou Sakkour Fall mooy sama bundu ci Serap Fall waaye ku Serap Fall ameel bor nag boo dajee ak Cheikh Moustapha mu fay la Cheikh Moustapha boo koy jox dangay ngay am Cheikh Moustapha boo koy jox da ngay yokk Cheikh Moustapha boo ko jegee dangay defaru Cheikh Moustapha waay yéene bis dina ñëw nga mën ko fasal fi nga toog nga ni Cheikh Moustapha am naa yéene jox ko te bés ku gënee junniy xar barki maam Cheikh Ibra Fall bu demee ba si kanam lu waay joxe dinga ko joxe ndax sunu borom moo tërale ay ay ay ay ay mbiram noonu maam Cheikh Ibra Fall daa nga ku bëgg doom ci yàlla da ngay joxe sa doom ngir yàlla ku bëgg alal ci yàlla da ngay joxe sa alal ngir yàlla lim bii fi daje muy goo ko fasantikoo ci biir réew mi ak bitim réew waaye Cheikh Moustapha ku dem mu dem ku demul ma dem taalibe mi dañuy dañuy ñu am jom te ñu dégg ndigal ñu ci bari seeni jëf ak si ñi nga xamante ni seen jëf ak seegul tamit sëriñ baa ngi leen sonn ndax xar yi ko xool xam ni ay millions la lay jar ndax ku ne xam ne ni xar seer na waaye Baay Faal am na loo war loo war Baay Faal te mooy ndigal waaye ku sax ci lii bàyyi tere duñ la mbëggal kon ñi ngi santaat bu baax euh, sëriñ Moustapha Fall ibnu sëriñ Abdou Sakkour yàlla na sunu borom guddal aw fanam nii mu ko jëfee ci tabaski gi noonu la koy jëfee ci màggali noonu la koy jëfee ci koor gi noonu la koy jëfee ci korte yi la koy jëfee ci mboolem ndigal yi nga xamante ni jóge ne kër sëñ Touba ñëw kër ñëw ñëw kër Serafal kon ñi ngi santaat bu baax Cheikh Moustapha ku ne xam ne mi ngi tabaski waaye forage bee nga xamante ni moo nekk Touba Linguère dëkk Alboury Baye Bouna Ndiaye ay millions moo ko war a bënn te ku ne xam ne ni sëriñ bi mi ngi ci projet yooyu kon buñ jébbalee xar yi ba noppi rek sëriñ bi li ay yitte mooy songu forage bii nga xamante ni mooy Touba Linguère di dëkkub sëñ Abdou Sakkoor Fall moom mii mu am fa daara tudde ko Madina Fall mboolem njabootu sëñ sa Sakkoor Fall sëñ Abdou Sakkoor dël leen fa kon ñi ngi santaat bu baax Cheikh Moustapha Fall ibnu sëñ Abdou Sakkour yàlla na sunu borom guddal aw fanam waaye lépp rek soxna Mbène Ndiaye mu tedd mii la ñu ngi ñaan yàlla sunu borom guddal aw fanam euh, ci barkeb sëñ Abdou Sakkour Fall waaye ci barkeb euh, soxna Debba Sarr fi feggoog nañ feek nag euh, Serigne Moustapha Ndiaye guy Ndiaye moom dina fi tabal ay kaddu sëñ Moustapha mbay dina fi tabal ay kaddu ba ci Baye Jibril kan ba ci sëñ Rijal ñu doog a jox sëriñ bi mu soññaat mbokk yi soññaat taalibe yi ba keroog ñuy jot ndigal dem jébbale xar yi Serigne Moustapha ñu ngi lay siyaare bu baax maa ngi siyaare mboolem ñi fi tew ñëpp waaye di siyaare tam mboolem képp ko xam ne yaa ngi uh, vidéo naa ak si yow may sant suñu borom subhaanahu wa baax a baax di sant waaye di jaajëfal maam Cheikh Rem Fall waaye di sant sëñ Abdou Sakor waaye di wax ne lépp rek ni ko noonu ko waxee sëñ Khadim noonu rek la sant yàlla rek la ak sant rek ak te di ko ñaanal di sant di ko ñaanal rek sëñ Moussa li nga koy ñaanal mooy fan gudd lool ak wér-gu-yaram maa wax ne képp ku ànd ak moom ci nekk ci réew mi ak bitim réew bu ne sa xel war naa dal ab sëriñ a ngi nii jëru na ngi nii ku bëgg lu baax ngi nii koo xam ne si bii loolu nga wax rek sagal ay magam waaye sagal yoonu Baay Faal yëpp waaye sagal lislaam yëpp sagal yoonu mur yëpp la fépp fu mu nekk ci réew mi ak bitim réew bu ne lépp lu muy def lu ne na nga xam ne si bii sa sagal yu sagal sagal sagal si yëpp sa ko rek lay def moo tax dana gudd fan dana wér ndax dafa am njariñ te dama wax ni yoon bi la wax ne képp koo xam ne si bi maanaam booy seet ki gën ci nit ñi mooy képp njëriñ ci nit ñi te sëñ Moustapha ko am njëriñ la waaye nag noonu la mën a am Moustapha la am Moustapha moom euh, tànnif la kon nañ ko ñaanal ak mucc rek ak fanu gudd may wax daal képp koo xam ne yaa ngi lii agsi na ci yow ndigal li nga xam ne moom moom ndigal rek lay moom ndigal lay wéy rek bëgg lu baax rek lépp lu ko nit jox daal mu jëm ci yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa dana ak moom sëñ Moustapha daal lépp lu waaye jox lu waaye du am lu ne mu jëm ci yàlla mu jëm ci maam Cheikh Fall boo ko teg ci loo xam dana ci àgg daal sikkuñu moom lépp lu ngeen nga xam defal nga ko yàlla defal nga ko yonent bi ba lu bëgg ku lu baax ngi daal may ñaan daal képp ku ànd ma ko ne yàlla nga am loo joxe la xam nga jëfkat moom ku ànd lii abaa si am loo joxe kon yàlla na ko yàlla defal ñu mu ànd la ñëpp suñu borom sax def ñu déglu te am lu ñu ko joxal moom loolu wax tam moom loolu nga wax mooy loolu tam maanaam lépp lépp lépp soxna si la ndaxte soxna suñu waajur yi di di di di soxna benn daa liggéey foofu foo war a liggéeyee moo tax nag yàlla yàlla guddal fanam dafa rëy ci ram waaw liggéey liggéey bu rëy te liggéey bi da da da àgg na àgg nga fa mu àgge noonu nga wax rek wax na gisaguñ dara nañ yàlla yàlla yàlla ma fan gudd rek bu nu yàlla maye fan gudd dañ gën a gis lu dana gis lu ci kanam li kanam mooy dax yéene ji bari na parce que ba bëgg bari na si Moussa lu baax la bëgg mooy noonu nga wax ci ndog yi ak lu mel ni lépp ak yeneen yoo xamul nag moom ak yeneen yi biir yoo xam ne mi ngi def loo xam ne lu baax keer ba te kenn xamu ko nag du ko defal yàlla rek tax lii jamono moo fa toll ndax ki lay jox sa alal ki xam nga di ko soññ yoon def na mu gis lu mel nii waaye li muy jëf te kenn gis ko moo ëpp lii li muy jëf te kenn gis ko moo lii fop fop fop fop waaye daa baax nag ñi nekk ci bitim réew di ko di mu leen laa ñu def ñu gis lii rek jamono toll waaye maa ngi xam ne ko ànd na ma ko ne raw nga fii raw nga fa jëm jëriñ ñu mat jëriñ a ngi nii sëriñ bu mat sëriñ a ngi nii yàlla loola yàlla rek laa ko seetal ku bëgg lu baax ko ku ay ku ay bokkam yëpp di sagoo waxuma la waxuma lay magam de waaye képp ku di baax fa yaa ngi sagoo si Sëriñ Moustapha ndax mi ngi ci la war a nekk jaar fa war a jaar kon yàlla na ko yàlla jàppale ci barke xasida yi sëñ Tuubaa ci barke sëñ Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf ci turu sëñ Moustapha di leen sant di leen gërëm bëgg sànni kàddu yu tuuti ci jëfi sëñ Moustapha ji ah jëf ji nag mooy liggéey rek ngir yàlla liggéey ngir yàlla nag moom la Serapha sance yoon wi te ku bëgg a rawet ci ngay jaar sa yëb sa koor day nekk dafa ba xëy jóge fi lum liggéey jox sëñ bàmba lum jur jox sëñ bàmba loolu de la fi nekkee tabaski yii day fekke naa ñu mu àbbu seex géey ma gaar bu ndaw ñaari wata benn bu ne mu def ci ñaar téeméeri xar ñu yóbbu ko kër Sëñ Blaat kon Sëñ Moustapha mi nga xam ne doomam la dem caatam ah su jëfee jëf jii du nu bett ndax wat ca watit wa rek ndax Sëñ Abdou dey ku ko xam mbaa ku ko digg mbaa ku jataay moom benn jataay di ko naw te doo ko nawee dara lu mooy cig taalibe rek cig taalibe képp képp képp képp nga koy nawee bëggul woon kuy fo bëggul woon kuy folu bëggul woon it kuy caaxaan si Moustapha mii nag ni ko gisee noon ñi nga xam ne amul dul sëñ Abdou Sakor sant nañ ci bu baax a baax a baax ndax li ñu ci sante mooy soo amee kilifa mu jaar fa la neex war nga koo sant yàlla ndax bu jaaruloon fi nu neex it dañ ko topp ngir yàlla ak gémmi sa Abdou Sakkoor kon bu jaaree fi nu neex nan ko sant yàlla ah, sëñ Moustapha nag yàllaa ko dimbali ndimbal li mooy jamono ji xat na lool te nit koo xam ne kii saa boo teggee sab tànk yaa ngi koy teg ci lu baax saa boo ko yëkkatee yaa ngi koy yëkkati ci lu baax kooku war ngaa sant yàlla ñeet sant nañ yàlla bu baax ndax sëñ Moustapha lu dul teral nit teral nit bokk ko gënal ndax gis ngeen jëf ji muy jëf saa su ci màggal yi tabaski yi addiye yi lu ne rek boole kook nag jëfi tasuf joo xam ne ji da koy jëf da koy jëfal taalibe yi Sëñ Abdu Sakkoor yi nga xam ne ñoo des ci kër gi mu taxawu leen ngir yàlla ak jëmmi Sëñ Abdu Sakkoor taxaw nanu bu baax a baax a baax baax nun ñi nga xam ne dañoo yaakaar Sëñ Abdu Sakkoor te nekk fi di ko dundee noonu sëñ Moustapha sagal nanu bu baax a baax a baax a baax ndax guddi ak bëccëg suba ak ngoon ci lu nu teral rek lay ci lay xëy ci lay gont ndax saabu saa bu ngeen ma figisee gisee saa bu ngeen ma figisee ma ñëw kër sëñ Moustapha de yi dama dama koy laaj si rek ñëw ma benn yoon ngir di ko indi addiya maa fiy ñëw rek ngir di ko laaj si waaye nag loola démbala du tey ndax nun de suñ waajur danoo joxoon sa jëb sakkoor nu nekk ak moom ba mu yàgg lool fii lanu duggee néegub góor sëñ Sakkoor moo nu ko dugal fii lanu takkale sunub aawo sëñ Sakkoor moo nu ko takkal fii lanu joxe ndigal ñu jàng métier sëñ Sakkoor moo nu boole kanu jàngal métier fii ci kër gi kon boo xamunu fi dara waaye am nañ fi pas-pasu bëgg kër gi sëñ Moustapha nag dañ koo gis muy dox doxin woo xam ne wii ci kër sëñ Sakkoor dafa yombul ndax jàpp ñépp ñi nga xam ne ñooy waa kër Sëñ Abdou Sakkoor kum ci gis def la def def na la ni Sëñ Abdou Sakkoor waa kër Sakkoor gépp kum ci gis rek def na la ni Sëñ Abdou Sakkoor nun ñi nga xam ne noo gën a xeebu sax suñu gisee dañuy jàppe jëmmi Sëñ Abdou Sakkoor jëm moo tax teraanga yi mu nuy teral guddi ak bëccëg suba ak ngoon waaye nag wolof dafa wax ne nit bu juddoo ci ku baax yaru ci baax màgg ci baax lu mu baax doyut te gaynde it bu la juree soo yurul fit waa njàmbaar gaat war a mën a xongali bët sëñ Moussa nag mi ngi xongali bët bu baax a baax a baax a ah cant gi nag foo toll euh, rek na nga xam ne ñi ngi koy def ñi nga seqal sëñ Abdou Sakkoor ñoo ko jëkka def ñi ko seqal sëñ sakoor ñoo ko jëkk a def ndax ma nangoo naa ci lammiñu sëñ Fallum sëñ Abdou Sakkoor moo ne sëñ Moussa de li muy jëf euh, gëm sëñ Abdou Sakkoor rek ci la ko teg ndax dencul alal dencul dara waaye nag dafa gëm sëñ Abdou Sakkoor gëm gi sëñ Abdou Sakkoor nag moom lay teg rek lu mu bëgg lu mu bëgg mu loolu moom fekk naa sëñ Abdou Sakkoor wax ko ko ah ko nee na lu mu maam mu waaw ah, waaw lu mu bëgg mu am. Eh, sëñ Moustapha moo ko waral moo fi ñu fi daje ñëpp eh, jëmmam moo tax ñu daje fi eh, di ñaan suñu borom yàggal taxawaayam suñ borom may ko wér ak kattan suñu borom guddal fanam te sàmm ko sàmm njabootam. sama njaboot gépp rek suñu borom yokk xéwal yi ba lim yéenee liggéeyal maam maam Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh Abdou Sakor mu matal lépp rek ndax euh, maanaam moom mi ci yoon wa ñu koy ñaanal rek naan doomi ñay moom kenn du ko ñaanal mu rëy da nga koy ñaanal mu gudd fan rek ndax ñëpp xam nañu guddee fan rek dina rëy ndax rëy la baaxoo waaw kon nag suñ Moustapha lu ñu def lu di ko ñaanal moom seede ci moom daanaka ne wax waxaat lay doon rek ndax euh, ku wax ci moom la nga waxoon daaw moom ngay waxaat ren rek ndax li muy li mu doon jëf daaw moom lay jëf ren euh, ci wàllum joxe gi tamit euh, muy ni ko doon defee at mu jot at mu jot da koy yokk nga xam ni maanaam dina joxe ba li waxuma la moom sax li muy li muy lu mu lu mu denc waaye day leb sax day leb sax waaw day leb sax di di ko jënd ay ay nag ak xar di ko di ngir jox ko waaw ngir def ko ci liggéeyu sëriñ bi te loolu ñu am ci ay firnde yu wér waaw euh, loolu nag mooy mooy pas-pas bi nga xam ne moom la maam si Ibrahima Fall yoroon. waaw waaw waaw lépp lépp dina kii waaw yàlla suñu borom dogal sax ba nga am milliards sax ba lépp bor bañ caa am waaw fal waaw day am sax <laughs> waaw waaw day am de waaw eh, kon nag moom di sant rek eh, ni ko Baye Jibril Kane waxee rek maanaam ni doomu moom mu la yàlla bindee eh, fu mu foo ko gis rek xamal ne njariñ njariñ moo ko fa bàyyi moo ko fa Euh, maanaam bunt boo seen nit ñi def ko njooxe xamal ni seen njariñ lañ fay lañ fay seet donte nekku fa sax moom lañ fa yaak dañ ko faa yaakaar waaye waaye ndokk nag ñi nga xam ni dañ fi ñëw ci buntu suñ Moustapha ngir dafa am yaakaar njariñ te fekk ko fi loolu duñ koy sante yàlla waaw buntu boo gis ñu kat dañ fa yaakaaru njariñ ni ko Baye Jibril waxee léegi ni maanaam suñ Moustapha su ma fi ñëwee dama koy laaj si moom sax euh, daa daa daa baax waaye suñ Moustapha moo yónnee woolu ko ndax léegi nii mu yónni demal wal ma Baye Jibril kër Baye Mbaye Xanti kon loolu mooy kaay jël kaay ma jox la kon Baye Jibril daa baax moo tax mu ni sëñ Moustapha euh, danaan euh, su ma fi ñëwee dama fee ñëw pour mu jox waaye moom moo ko woolu moo ko woolu pour jox kon mooy kaay jox la kon loolu mooy jikko ju rafet ji nga xam ne moom la euh, sallallahu alayhi wa sallam amee woon moom la sëñ Moustapha yor mooy ak yaatu maanaam jaboote ñëpp rek maanaam képp ku ñëw ci moom maanaam mu jëflante yow jëflante boo xam ni boo doo bëgg a tàqale ko moom ndax tàqale ko mënta ñàkk waaye boo tàqale ko moom sa xel du jëg ci moom loolu nag euh, tawfeex la joo xam ni li ñu wax ni suñu bi xaadar moo ko waxoon ni xawma jàmbaar guñ dimbali laa xam loolu tawfeex la ji ko suñu borom jagleel euh, di ñaan suñu boroom gën koo dëgëral taxawal ko ba li mu yéene lépp rek mu matale ko. xanaa nag di sof ci li ngeen doon wax rek tënk la sëñ Xaadim wax ndax fan yi tàmbalee mooy daara ji li sëñ bi doon wax barki démb bala ñoo dem mbuur kaamil alxuraan yan fa doon wàcce li mu waxoon tut tànk yi ci donga yi xamal leen ne leen lii ngeen nekk mooy dëgg ndax njàng mi ngeen di jàng alxuraan ji teg ngeen ko ci aw yoon te it foyewu leen ko saax saaxewu leen ko ndax bayit woo xam ne boo jàngee ba war a yokk fen di yeeslu lu sax da ngay teg sa sa baaraam ci ab xisane diw fii laa yem kooko tàmbalee foofa loolu ak seetal ko dëggal mun koo kawe jëf jooju nag daa nekk ci borom daara ji nekk ci ñi nga xam ne ñooy ay kilifaam tàmbalee ci Cheikh Modou Fadal ak rakkam yëpp nit nag lu la waay wax lu dul dëgg rek kooko bàyyi na loolu ndax sëñ Tuubaa Cheikh Abdoulaye nee na ku ne ku dem ma dem ku demut ma dem boo geesoo sa ginnaaw di nga gis mbooloo Cheikh Moustapha mi foofu la nekk nit nag booy wax na ngay wax li nga xam ne nun ñii kenn ku fi faatu ku nekk yow dong yaag sa bàmmeel yaa fay nekk la ngay nettali mbaa nga di ko wax bu dul dëgg bu boobaay da nga ko nettaliwaat kon nañuy wax li ñu xam te bañ cee yokk leneen ndax dëgg rek la yàlla bëgg yàlla nag moo ànd ak dëgg dëgg googu mu àndal ci la mu Moustapha nekk nekk ko fi nekk ko bitim réew ak ku mu mënti àndal ku ne ku mu doon ci dëgg lay ànd ak yow boo dëggoo di ko neex loola tax jaami yàlla yëpp ànd wëlbati ko ànd moom te it ku dem Italie mbaa nga dem France mbaa nga dem fenn foo te dem ba Norvège di nga xam ne sëñ bi li mu nekk nii moom fu dem dina ko ànd ak jaami yàlla yëpp lu baax la bëgg te bëgg koo bokk ak ñëpp ni ko sëñ Fall waxee woon loolee Cheikh Moussa bëgg te bëgg koo bokk ak ñëpp nag yal na ñëpp tàbbi ci biir ci kattan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jubbanteeg jubal ak teg ñun ci yoonu yàlla rek la fi nekke nun ñii nga xam ne daje naa ak nun fu ne xam na ne jubbanti nañu ba teg nu ci raay boo xam ne mënatuñ ko wàcc abadan faw kon yàlla na yàlla defal loolu ñëpp te loolu rek mooy jubloom ndax gis nan xale yi Dakar yi nga xam ne tuwaarkàlla séq naa ak ñoom ñuy gone yu baax yu am pasteef yu bëgg lu baax ku fi bëgg lu baax rek na nga taatal li sëñ bi wax te boo ko jëfee di nga jariñu kon nag fii ak bitim réew ak fu mu dem loolu mooy ay tànkam dundal islaam dundal Baay Faal gi di maam Cheikh Faal maamam kon nag lu mel noonu yàlla na ci yàlla tënk nun ñëpp Cheikh Moussa daal yi nga yéene àdduna bépp ak mbooloo mi yàlla na la dal yàlla na la dal ci barke barke sëñ Fall. maanaam sëñ Moussa moom dafa nekk koo xamante ni maanaam. nituk ñépp la am kenn ku ci nekk boo wéetee da nga yaakaar yow rek la bëgg ndax man dama am xel mu daal ndax li tax mu am ko mooy koo xam ne ñëpp ay jóg di ko wër mu waxal la boppam ci làmmiñam ne la man dama laa bëgg boo tëddee da ngaa war a nelaw Cheikh Ibra ku mu bëgg boo tëddee da war a nelaw te man ci ñooña laa bokk eh, sëñ Moustapha bu ma doon wax ci moom fi laay fanaan barke maam Seera Fall man de fu ne jëlee na ma fi ci àdduna giñ naa ko Cheikh Abdou Sakkoor ma yaakaar ndax maa waroon di ñaq di ñëw di ko jox ndax mooy saab sëriñ waaye moom mooy yëkkati ci addi dooleem di ma defal kon kooku mënuma koo fay ak ñeneen ñu dul man ndax am na samay xarit yoo xam ne xamuñu sëñ Moustapha mi dañuy toog ak man ni ma sa sëriñ bi de bu ma amul woonub sëriñ ci moom laay jébbalu ji ndax ku la mënal fii bu ëllëgee mu mënal la fan jëm barke maam Seera Faal ma yaakaar te lañ waxoon rek képp ku bu ngeen xeexee mu duma la sama baay daf maa masa woo ba ma ñëw mu ne ma baylaat ma ne ko faal mu ne ma sëñ Abdou Sakkour ma woo ba ma ñëw mu ne ma Abdou Samam ma ne ko faal mu ne ma doon nag doon lu ci gën a wér ma ne ko faal xanaa doon mu ne ma sa maam Cheikh Ibra doon duma ko dama koo doon te kii mooy sëñ Abdou Sakkour kon mooy maam sa Faal yàlla na dund téeméeri at yu tàmbali ren te dara bañ koo gàllankoor nag ci doole Cheikh Abdou Sakkour lu mu bëgg yàlla na ko man barke maam Seera Faal yëpp ba tàmbalee nga xam ne moom yàlla dafa dogal ginnaaw bi ñu bokkee Cheikh Ibra ma am cofeel ci moom lool mi sama xarit lool wax dëgg yàlla yàlla dogal lool yàlla dogal na diggante bi yàgg na lool ndax fu mu nekk rek fekk naa ko fa fekk naa ko ci barab yu baree bari yu mu nekk cant yi mu daan def yëpp man ak moom ñoo ko daan ànd ànd kook mbokki Baye Fall yëpp yàlla dama natt ci moom ma am cofeel ci moom bu yaatu yaatu loolu nag du luñ bokk Cheikh Ibra rek taxut li ko waral mooy jikko jikko ji mu wane li ma ko won di ko wan taal bi yëpp jikko jooju rek moom laa cofeel boobu laa am ci moom moom la ñëpp it am ci moom lu ñuy wax ci moom daal mooy ñaanal ko rek sama borom jàppale ko dëgëral ko cat seexlu ko boo dem lu mu yéene ci liggéeyal Seex Ibra rek mu mane ko ndam ko mu defee ko dama ko bëggee barke Seexul Xadiim moom daal ñaan rek lañ man ci moom <laughs> waaye ñu ko ñaanal baax a sama borom dimbale ko rek soo ko ci cat ba yéen ji mu am ci njabootu Cheikh Ibrahima daal mu def ko na mu ko bëggee barke Cheikhul Khadim loolu lañ ko ñaanal. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant suñu yaakaar te ëllëg Serigne Touba Khadim Rasoul ak maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal leen yàggal ko fi loolu tamay ko wér ak njaboot Serigne Touba yëpp noonu lañ koy ñaanalee Serigne Amdi Fall mi xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina gépp waaw di di ñaanal Serigne Fall Fall mi ngi xelif Serigne Abdou Sakkour ak njabootu Cheikh Abdou Sakkour Fall gépp muy góor ñi ak jigéen ñi mag ak bi yal na yàlla defal ñëpp jàmm ndax jàmm moom mooy lépp su jàmm amee rek euh, lépp lu ñu bëgg rek dina mën a am insha Allah su neex nag suñu sët bu baax bi sëñ Basiru moom sëñ Saliou Baye Fall moom sëñ Fallou Euh, maam it euh, di soxna Daba mi nga xam si mooy doomu si Moussa Fall sama turandoo kon moom am na wàccuwaay yu bare bari bari fii ci daara ji waaw macha allah jërëjëf Mbacke yàlla na fi yàlla tamit lu wér sant bu baax di siyaar ñëpp euh, dañu sant bu baax nag xam nga tabaski moom dafa doon loo xam ne dafa doon ndigalu suñu borom ndax suñ boroom moo ko moo jox ndigal sunu maam Ibrahima Xalilullahi ngir mu. mu mu rendi doom ji Ismaïla la ah. loolu nag day loo xam ne fitna day daal di feeñ foofu fitna ju rëy rëy rëy fitna jafa feeñ nag mooy bi mu jotee ndigal loolee te fas yéene ko jëfee ba dig ba jotee bi nga xam ne ci la war a ci la war a jaayante jëf joojee nga xam ne moom la ko suñu borom digaloon ngir mu war koo def suñu borom yàlla mi dara tuub mi nga xam ne dafa fonk doomu aadama nga xam si lu lu mu bind rek doomu aadama ko ci gënal te loolee la ko waral mooy bi nga xam ci bind na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ngeen gi mbindeef nga xam ne kun bind rek moom moo tax nga xam ne àdduna moom kon gën mënut a ñàkk waaye gën la te mënu fee ñàkk ndax ba mu gënee ba mu bindee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne moom a gënal ci képp koo xam mas naa la bind rek kii la gën te mooy sab sang kon boobu la euh, gënante am ci àdduna bi loolu la yàlla dogal ci ci ci ngeen gi mbindeef yàlla dogal euh, bi loolu amee euh, suñ borom euh, suñ maam Ibrahima xalilaay nga xam ne si xar mooy mu ba ba mu tëree doom ji Ismaïla suñ borom jote ko xarma loolee moo indi tabaski nga xam ne loolee ñun ñëpp dañ cee maase sant yàlla nga xam ne waajuram wa soxna Saarata dafa sant lool Ismaïla doom ji sant suñ maam Ibrahima xalilaay sant ah jaam yëpp sant kon sant moom lu mën a jóge ci àdduna ndax loolu ak cant gënu ko rëy ndax boobee doom jooje muy Ismaïla bu ko rendi woon tey jii de ku amati doom ju góor di nga ko rendi waaw moo tax nag loolu kon tabaski day farata farata farata la ci ñëpp bépp jullit bu bu bu bu bu bu yàlla sàkk rek tabaski day farata ci yow nga xam tey ji képp muy ten ni mu nekkee farata ju góor noonu la nekkee farata ci jigéen ñi ndax ndigal li eh, yàlla bi mu ko joxee suñu maam Ibrahima eh, ndigal loolee dafa wàcc ba ci waajuram mu jigéen wàcc ba ci moom doomam ji Ismaïla Ismaïla tam daal di nangu lool ànd ci ñépp bëgg xam nga loolu loolu loolu loolu yombul tey jii ku fi waxoon sa doom tey ne ko bu subaa dinaa rendi tey fan lay fanaan sa doom joojee tey ku fi digal sa doom ne ko bu subaa yow laay rendi tabaski la def def ndigal suñu borom sa doom ja doo ko gis doo gis yaayam yow yow sax mën nga ko bañ a jëfee kon loolu lépp nag euh, kan ko teggil euh, remplacer ko xar ma nga xam si dalaa laaj na la kat bu waxtu jotee na nga wut am xar xar mu xar mu xar mu góor boo ko amee na nga ko ko indi soo ko amul nga wut xar mu jigéen wala nga indi béy béyu góor wala béy wala béyu jigéen egg egg na ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci gëléem ba ci nag sax yooyu yëpp daggan na ci tabaski waaye xar da cee gën xar mooy ndax xar mooy li nga xam ne si ne moom la ko seen naa Jibril indi loon moo wut moo moo wutaatu euh, Ismaayila ndax bi mu tëree bi mu tëree Ismaayila bëgg ko bi mu bi mu tegee paaka bi suñu borom la ko dimbali bi mu bi mu bi mu tegee bi mu bi mu dawalee bi mu tegee eh, am xar la fa fekk loole nag maam Serigne Fall daal ne ngëm nga sama turandoo Ibrahima Xalilaay amoon ba ba ba ngëm nga ngëm nga sama turandoo Ibrahima Xalilaay amoon ba ba tër eh, doom ji Ismaahila ngëm googee maam Seex ne ngëm googee moo ne ci man daan ni moom dafa amoon eh, yool bala amoon waaye man jëf ji laa fas yéenee am moo tax maam seex ba mu jëlee doom ji sëñ Fallou jox ko sëñ Touba mu dem ci guerre moo tax sëñ Fallou dellu si wut mu ne jaayante ga sama turandoo xalilaay amoon ba ba joxe doom ji Ismaïla ngëm googee moo ne ci man moo tax ma jël sama euh, doom ji jox ko jox ko jox ko sëñ Touba te te loolu tey yaakaar naa ne bu sëñ Fallou Fall demul woon te ku ne xam ne tey sëñ Fallou Mbacké lan la représenté ci lislaam lan la représenté ci ci yoonu murit ak ci Sénégal gi ak ci àdduna bi yëpp te ba ba nga xam si ne ñu bind soldat si sëñ Fallou maam Cheikh moo ne sëñ Bamba man de ba muy am sa doom sama doom ji sa sa doom tax kon bala ñoo jël bala bala ñoo jël euh, sëñ Fallou Mbacke dem sëñ Fallou di fa des sëñ Fallou ko fa ba mu jur sama doom sa doom ya tax loolu dégg ngeen sa njago yàlla ko yàlla dool yërmaale leeral na ko ba tey ndax loolu kenn gisagul ku jël doomi ku ku jur ay doom ngir doomi kenn maam Cheikh Fall rek moo fi amagoon ay doom ngir doomi sëñ Bamba ba may am ay doom kat ba may am ay doom du jur ay doom sa doom ya tax fa sa doom yi nar a des sama doom yi des fa sa doom yi nar a des sama doom yi desaleen fa loolu kon maam Serap Fall moo jaayante moo tax kon gis nga nun murid yi rawatina nun Baye Fall yi lépp lu ñu defal sëñ bi nañ xam ne doyut ndax maam Serap Fall kat da koo jaayante ko liggéeyal da koo liggéeyal sunu borom ndax dinaa leen njàmbaar yooyu jëf yooyu tey jii bu fekkoon ne euh, maanaam euh, dafa nekk loo xam ne dafa bokk ci arab yi tey da nga dégg tagg wu dañ ko daanañ ko di waxe waaye nag yàlla dafa doon ñu nekk ay nit yu ñuul doon ay africain dëkk Sénégal néew doole moo waral suñu suñu suñu jaloore ak suñu jëf du man du mën a du mën a feeñ waaye li nga xam ne si ni moom la Sénégal nitu yàlla yi liñ fi def ndax Touba gii maam Serigne Fall bi muy dëkk bi euh, nekk na di liggéey di gor ba mu yàgg am jaan ju jóge ci kaw wàcc màtt baaraamu sangalañam bi maam Cheikh kon na di liggéey di liggéey ba mu yàgg jaan ji dellusiwaat mattat ko mooy ñaar yoon maam Cheikh di gor ba mu yàgg yàlla ji taw ndox mu bari jaan ji dellu si mattar ko foofu nag ci la ci la wàcce ndànk daal tëdd euh, xaw fa dallu ab dallu bu ab diir ba wal moomee wax nañ ne moo ko yóbbu ba tey fii jumaa ji nekk tey nga xam ne kon xoolal kooku li mu daj te yooyu bu ñuy lim euh, bu ñuy lim maanaam li nga xam ne euh, jaloore yi nga xam ne maanaam moom la africain yi def ci lislaam duñ leen tudd boo xoolee doomam jooju di sëñ Fallou xam nga ne ku am sab taaw amul du moom moom nga jëkk gis ak jamono boobu am doom sa rawatina góor ñu jafee nga jël ko dugal ko ci lislaam te loolu lépp lislaam rek moo taxoon mu def ko xam nga kon loolu lépp dañ cee war a gën a sant yàlla ndax dégg nga sa waxtaan ba am bis euh, euh, sëñ Ablaye mu nga xam ne euh, sëñ Fallou da ko doon téeloo ab ab liggéey mu ndax sëñ sëñ Fallou ministre boobu mënoon def mu am si ba dagg ab loxoom ba deret ji ba ba bay bay laal sëñ Fallou mu ne ko waaw lii lan la mu ne ko sama baaraam bi dama ko yóbbaale mu ne ko lu teewoon nga waxal ma ko xoolal googu ngëm rek sëñ Ablaye Fall Ndar xam nga xam loolu moo lay wan ne maanaam euh, ñoom kenn demul ñu des woowu ñu ni woowu nit ñi rek li may wax saa ngir ngir jaar ñoo leen dañoo woote nit ñi ngir dimbali leen waaw moo tax ñun senegal gi ñu am li fi nekk kenn amu ko àdduna bi kenn amu loolu li sëñ Fall wax rek ne ne ne ne ñun liñ li ñu am kenn amu ko sunu sëñ Tuubaa mii kenn amu ko ñun rek ñoo ko am kon dañu ko war téye ak sunu fukki loxo juróom. man de euh, kon maa ngi soññi taalib yëpp ñëpp nañ gën a laxasaayu gën a góorgóorlu te te te am fit nag ndax liggéeyal yàlla joxe aw fit a koy def ku amul fit rek mënoo liggéeyal yàlla kon nañ leen ci gën a takku gën a góor góorgóorlu baax a baax addi ji képp ko xam sa dërëm dému ci woon da ba sa tàbbal ci sa dërëm ndax addi ji ñu dajale sëñ Bàmba lañ koy yët ndax baam Bàmba moo amuk fay tey moo amuk fay ëllëg kon kenn ku ci nekk taalib bi muy góor ñi muy jigéen ñi nañ bàyyi xel nañ bàyyi xel ne sëñ bi ku koy liggéeyal doo def doo def doo def loo man loo mën loo mënul koy def képp koo xam si yaa ngi jëfandikoo la nga mën ci sëñ bi xamal ne defoo dara waaw li li sëñ bi moom képp koy liggéeyal da ngay def la nga mën la nga mënul tam nga jéem ko noonu la ñuy liggéeyal sëñ bi kon um, nañ ci maa ngi soñu taalib yëpp ñu góorgóorlu ci ndax man dama neen man sama yitte sama bëgg mooy Serigne Touba laa bëgg man si Fall laa bëgg liggéey leen laa bëgg ndax na képp ku fi ñëw ku ne am nga loo teg sa bët ñu dañoo bëgg doon ay ay ay yor ay entreprise yoo xam ne dañuy gagné ay marché yu mag di di di di di yor ay parking di jaay lu ñu jaay mu jar di di di tabax ay soto kenn ku ne loolu nga bëgg man nag li ma bëgg mooy lii maam Serigne bëggoon muy liggéeyal islam muy liggéeyal yoonu murit muy liggéey Serigne Touba muy téye njabootu Serigne Touba gi mooy téye ñi nga xam si dañu ànd ak Serigne bi téye dëkkam bi loolu doon sa yitte doon sa yëngu doon sa dal man loolu mooy sama bëgg kon képp koo xam ne si jóg nga ngir bëgg ànd man na nga xam ne jóg nga eh, engagé loo xam ne lu lu yombul la. ndax maam Serap Fall kat daan yoon wi sëriñ sëriñ bi may seet dafa yegg ci yàlla di ko topp àgg loolu ma tax a jóg maam Serap loolu wax de bi mu ko seet daan sëriñ bi may seet dafa yegg ci ko topp daan sëriñ bi may seet lu nit tilim tilim boo duggee ci biir leeram gi boo ju duggee boo génnee seet wicc boobu sëriñ nag moo mat a seet te maam Serap Fall boobu sëriñ la doon seet muy sëriñ Touba waaw daan sëriñ boobu tam su ma waroon àdduna ba mu daj te gisuma sëriñ boobee daani xam ne daana dox ci suuf si asamaan si daana ko tiim jant bi daana ko leeral Euh, loolu rek doy na ma am naa pas-pasu di liggéey ba yoonu murid am ban yoon yu mel nii maam Cheikh faal nee na bu gisul woon Serigne Touba sax am na pas-pasu liggéey ba Touba am jumaa ji am murid yi am ñuy daayira di màggal kon kooku mooy yoonu murid ah maam yi sëñ Fall lu mu wax dane man bu ma doon dellusiwaat jamono euh, maam Cheikh Fall mooy doon sama waajur daa bëgg maam Cheikh Fall ba dane bu ma doon dellusi jamono seex laay doon maam Cheikh mooy doon sama waajur ci moom lay wàcc te loolee tamit da def ay firnde yu leer naññ da koo jëfee. bam mu ne ba toll ci ci jamono jooju moom sëñ Fallou euh, dafa dem kër kër kër maam Serap Fall jël jël fa jël fa ay ay sëtam yu yaatu dugal leen biir këram kon sëñ Fallou yàlla ñu ko yàlla fayal daal di jël ci ñi maam Seex seexal jël ci ab lim bu yaatu dugal biir këram xam nga loolu loolu bëgg mënu ko weesu waaw kon kon sëñ Fallou amul morom yàlla ñu ko yàlla ñu yàlla fayal sëñ Fallou waaye yàlla ñu yàlla fayal tamit taalib yi nga xam ne ñu ne ñoom ñoo ànd di liggéey ñoom tam yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla na yàlla wéral leen yàlla yaatu kàttan leen doole leen yàlla ngeen am ay milliards ndax taalibe yi dañoo am pasteef taalibe yi nga xam si ndax bu ñu nee taalibe yi mooy taalibe yi nga xam dañoo jóg ngir ngir jël seen alal joxe ko ci yoonu yàlla ndax Sëñ Tuubaa euh, dafa woote euh, jihaadu nafsi la woote neen nañ xeex ak suñu bakkan yi xeex sa bakkan mooy lépp loo xam ne si ne euh, maanaam su sa diine aay na ko na nga ko na ko moytu te te te te not sa bakkan bi yàlla gërëmul nga not ko ci loolu mooy jihaadu nafsi kon nañ jël sun jël lépp loo xam ne euh, maanaam yàlla gërëmu ko ñu teg ko le te li yàlla gërëm ñu jeex ci tàkk kon loolu maa ngi ciy soññi taalib yëpp ñu gën a góorgóorlu te xam ne sëñ bi lii mu ñu tànnal moo gën lépp kon yàlla ñu yàlla fayal kon maa ngi soññi taalib yëpp ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax te gën a takkuwaat te xam ne tabaski mu ngi nii ñu ngi ci toll jeexagut ndax li ma leen wax ne liñ fi jot a dajale ci ci ay xar xam naa ne euh, téeméer bi manqué na tuuti waaye xam naa du bari waaye eh, su ko su ko defee tamit lim bi li ma leen ko waxee leer leer léegi li ci li ci ëpp dañ koy yóbbul Serigne Fallou suñ noppee li ci sam dañ koy yóbbal njabootu Serigne Sakkoor nga xam ne dañoo nekk ay ay ay doom yu jigéen ñooñu ak mag taal bi nga xam ne yelloo nañ ko ci biir kër Serigne Sakkoor ak ñi nga xam ne ahlu Mbàkke lañ te yàlla boole ñoo ñoom noonu noonu la liggéey bi tëddee ak yenn këri diine yi ndax maam Seera Fall kat bi mu liggéeyal bi Serigne Touba demee ci géej dafa jël danaan jël ay gëléem ak sëf di koy yóbbul maam Thierno Birahim nan ko njabootu suñ Bàmba gi buñ xiif buñ mar diggante askanu Mbàkke ak Mbusoobe ak ñi nga xam ne si ne dañoo duggoon ci diine lislaam te yoroon leen te bi mu demee ci géej gi bàyyi leen fi ñooñee buñ leen taxawut xëy na mën nañoo delluwaat ci lañ nekkoon te yàlla dimbali nañu ba ñooñee maam Cheikh daan daan jëf ci ñoom lu yaatu di ko jox maam di ko jaarale ci maam Thierno Birahim moom ndax moom la Sëriñ Tuubaa dénkoon yoon wi ci ci mu jore ko yoreen boo xam ne dara yàquut kon moom tamit yàlla nañu ko yàlla fayal kon daal man li ma leen wax rek sëriñ bi moom lépp sëriñ bi sëriñ bi la doomi sëriñ bi sëriñ bi la soxna sëñ bi sëñ bi la euh, magi taal bi sëñ bi sax sëñ bi la sëñ saako daa na wax sëñ bi sax sëñ bi la kon ñi nga xam sëñ bi da leen da leen a defar muy seex ak ak ak magi taalibe yi ak ñi nga xam ne dañoo nekkoon ak moom ñooñu képp ku bëgg jaruñu sëñ bi na nga warmaal ñooñu soo leen warmaalee rek euh, mel na ne sëñ bi nga warmaal kon yàlla yàlla fayal ñu daal Euh, ñëpp rek te tamit maa ngi soññi taali bi ñu xam ne forage su Touba Linguère bi euh, du ma ci dëpp du ma daay duma dellu gannaaw waaw du ñu dëpp du ñu daay du ñu dellu gannaaw forage boobu fas nañ yéene incha allah bi su neexee yàlla bokkee ci dogal suñu borom yi fas nañ yéene alhamdulilah rabbil alamin fas nañ yéene ndax li tax ñu ñu ci sonn jamono jooje dafa métti woon te li te li ñu def nii doon loo xam ne bëggu si yëpp sàkkoor la goo xam ne yàgg na koo bëgg ci dëkkam bu tedd boobee ndagam am na forage sax waaye ndox ma euh, dafa duyut na war doyee te bëgg nañ nit ñi yor tool yi di bay euh, di def euh, di fay di yar ak jur di def lépp loo xam ne maanaam dina développer réew mi ndax man sama yéene sama bëgg mooy naan dama am yéene ak bëgg te fas naa ko yéene ndax maam Cheikh Fall la mu defoon pas-pas boobee ak jaayante ga ba mu koy def maanaam doon woon loo xam ne dafa yor ay matériel ak ak ak matuwaay yu mu ko defee waaye Pastef ak gëm ak tolluwaay moo taxoon mu def kon ñun tamit bu ñëwee fii ci àdduna yàlla euh, bàyyi na fi ñu représenté mag ñooñee war nañoo gën a góorgóorlu baax a baax ndax euh, Sénégal dañoo bëgg jël lépp sauf ko gouvernement bi te gouvernement lépp ñun ñi man li ñaan mooy suñu borom dimbali ma ba nga xam si gouvernement bu jëlee ay ay millions ma jël ay milliards yi yoo xam ne man tamit maa leen di dugal ci barab ñuy liggéey man loolu laay ñaan Cheikh Abdou Sakor yal yàlla na ma ko defal te maa ngi koy ñaan tamit na ma dimbali ba li ma ko bëggee a liggéeyal ay milliards moo ko man maa ngi ko ñaan na ko jox te dina ma ko jox nag man loolu leer na ma naa ñu si yëpp saakoor dénk na ma ay milliards jot incha allah bi te maa ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla nañ ko muurloo te yalla nañ ko bokk ñun ñëpp yàlla bu ko kenn wute yàlla nañ ko fekk ci barkeb si Abdou Sakor waaw jërë ngeen jëf kon ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp te bu tabaski jàllee tam nañ jublu ci waajtaayu màggal gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ibrahima xalilulaay mooy ibrahima abou rijal mii ndax ibrahima tabax kaaba ak màkkatal karama waa Ismaïla bënn teen ba ndox ma neex mel ni kaw sara waa Ibrahima Ibrahima Fall moo tabax Kaaba ak Touba ak Mbàkke mooy ndigalam waaye sañ Mourou Moussa saaba sa turandoo moo bënn teen ba jaaji Fall kon ndam la dem na kaw sara kon Ibrahima Xaliilulaay mooy Ibrahima bëri jaal kon Tabaski sunu maam sa maam Cheikh da cee am wàllu wu rëy ndeysaan te ku ne xam ne ni Debbo Saar moo moo meññi sëriñ Abdou Sakour Fall te Saarata moo meññi moo meññi Ismaïla kon te Ibrahima baayam te xalilullahi mooy xaritu yàlla waaye te Seydina doom jo mooy Ismaayila waaye xalilullahi mooy xaritu sëñ Bamba waaw kon ñi ngi ñaan ci barkib sëñ Tuubaa doole yi maam Sera Fall Fall njëkka nga gudd fan te yàgg fi naka sëñ soo ko Fall waxe woon te yàgg fi te liggéey te ñu ànd ko ak yow liggéey bi ngi liggéeyal sa maam ci biir réew mi ak bitim réew yàlla nga àggale lépp kon bu ko defee dañuy eh, yemale foofu eh, liggéey bi te dem eh, film won ko àdduna yëpp xam ne sëñ Moussa fu mu tabbi rek mi ngi waaj ay tournée waaye fu mu tabbi rek Moussa daa raw tey rawale loolu Baye Modou Lam waxoon sëñ Modou Moustapha Mbacké bay mut laam moo meññ yabalaam nekkoon na représentant xalif général des mourides Mali ni ko Cheikh Moussa Fa su turandoo daa raw tey tey tey rawale waaye waaw jàmbaar jooju sàndaama waaw Cheikh Moussa Fall amul moroom ba tey programme am mooy dox ndax keroog sëñ Fallou faal mi nga tudd bi muy dem géej daa ñëw jël cummikaayam dénk ko sëñ Modou Moustapha Fall ni Ablaye ñoo bokk maam Wade maam Fatal Wade su ma neexoon yow laa koy dénk waaye mooy Moustapha Fall dénk naa la sama mbooloo mi bisu penc ca tàkkusaan nanga ma ko delloo maam Sera Fall ni xalaas Moustapha Fall ku ko dénk sa cumbukaay dóor dóor ci gaaw a jot bàyyi Moussa Ka ni keroog ba Cheikh Fallou Fall di dem géej la naan daamal yi kat mooy saa garab nee na saa cumbikaay kii jafe na ne Cheikh Ibrahima roy doonu gaa ngi bu wér nee na ndaamal yi kat mooy mujj doon daañ jaama kii jafe na ni Cheikh Moustapha Fall Cheikh Falloog baayam rek ko am waaye am bëkk yomb na am jur muy xalam kii jafe na kon xale yi ngeen yëkkatiwaat du nu dëpp du nu daay du nu des gannaaw ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi doole yàggat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda xalifa na fi yàgg lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal suñu jàmbaar ji toog euh, Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu sëriñ Abdou Sakour Fall di ko ñaanal sëriñ Mortala Fall ibnu sëñ Abdou Sakour Fall waaye di ko ñaanal sëñ Aliou Fall ibnu sëñ Abdou Sakour Fall waaye di ko ñaanal suuru Mame ibnu sëriñ Abdou Sakour Fall yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér Fall Ndiaga liggéey bu tedd bii nga xamante ni eh, ndigal li nga xamante jógee na ci sëriñ Touba xaarim rasool ñëw ci seen maam maam Cheikh Ibrahima Fall eh, Babul Mouridine tabaski ku ko tudd xel lépp dem ci Ibrahima Xalilulaay xaritu yàlla waaye tabaski ku ci ko tudd xel lépp dem ci Ibrahima Fall abori jàllulaahi euh, bàyyi góor yi yàlla yi fanaane ci yàlla ndigal li nga xamante Serigne Touba joxoon na ko seen maam euh, maam Cheikh Rahim Fall mboolem bundu kër maam Cheikh Rahim Fall yi at mu ne euh, ñu yëkkati lim bu am solo jébal ko Cheikh Mamadou Mountakha ñi na ko jébal ko magam ju baax ji mu ñu bu ngeen demee na ngeen ma tàllalal seen micro Serigne moo Moutada mi nga xamante ni moo fa nekkal seriñ Fallou Serigne Fallou suñu borom dogal mu génn doon nemm ki taalibe waaye ku yëkkul yaa wàññi waaye ku ne xam ne ni Cheikh Mouhamadul Fadal yokku na liggéey euh, sëñ Abdou Sakour Fall bi fi sëñ Abdou Sakour Fall bàyyi ko 1984 ba tey moo yor xilaafa gi wuuf rakam yu baax yi mu am wuuf njëbëg di leen sàmmal euh, sëriñ Abdou Sakour Fall sëriñ Mouhamadul Moutada ñi ngi ñaan ci barkeb Cheikh Mouhamadul Moutada yàlla na sunu borom euh, guddal fan wi yàggal fi sa mag yu baax yi ak sa rakk yu baax yi ak mbooleem njabootu sëñ Abdou Sakour gu gu góor seen dongo muy Cheikh Moustapha Abdou Sakkour mi ngi yeesal ak njëbbalam waaye mi ngi yeesal jaayanteem mi ngi yeesal kóllëreem Euh, boole noog Baye Sàkk mii di doomam ak Baye Rijal Ñang ak Serigne Moustapha Mbay yaaram daara ji nekk umul xuraa Serigne bi dénk ko muy sàmm dongo ya bokk ci njabootug euh, Baye Ibrahima Mbay euh, njub ngent te ku tudd daara jooju tudd jàmbaar yi maam Cheikh Rahim Fall ku ci mel ni sëñ Cheikh Fall sëñ Mudu Aminte ba ci Cheikh Moustapha Fall ibnu sëñ Abdou Sakoor Fall Njaga liggéey bu tedd bi nga xamante ni Cheikh Moustapha moo ko yëkkati teg ko ci loxo sa sa loxo nga fas yéene ko tegal ci loxo sa loxol mag ju baax ji muy Cheikh Mouhamadul Fadilu xalifa sëñ Abdou Sakoor mbooloo mi leen nuyu ci turu sëñ Fall Fall sëñ Amsa Sakkoor Fall di leen xamal ne tamit gis nañ liggéey bi agsi na di di di gërëm nag sëñ Moustapha ak ñi mbokkal kër sëñ Amsa Sakkoor Fall ñëpp gis nañ taxawaayam ci ci kër gi gis nañ taxawaayam tamit ci mbokki taalib bi yëpp àndal liggéey liggéey bi lépp moom ni ñu wax ni sëñ Fall dana waxee rek mën nañu wax ne moom war yàlla lanti noor la moom jiite ñëpp lu ñu ko jox daal moom sëñ sëñ jot na ci sëñ jot na ji muy euh, waa bitim réew ak ñi seeg seen Sénégal yëpp ñu bokkal sëñ Tuubaa Seydou Seydou Sakor Fall liggéeyam daal moom agsi na ci na ci sëñ bi ñëwoon euh, sëñ Sakor tamit ñëpp gis nañ ko na suñu xol seet na ci baax a baax a baax moo ñëw ko àndal ñëpp waaw mën nañu wax ne moom euh, day yokk yoonu maam rek ndax li ko maam baatale woon la ci la nekk eh, mooy jëfe ndigal ak ak ak ak bàyyi tere ci ci ci loolu lañ ko xam ñun ñi wax ay ay magam lañ ci léppam lañ waaye nag mën na yowaan wax yàlla mooy tam roy royukaay la daal la royukaay royukaay royukaay la ci kër kër maam ndax li lépp moom bi rek moo ko ñor ak lu baax kon ñu ngi koy ñaar di ko ñaanal ñu ñu ñu bokk seen bisaab ko ñëpp ak taali bi yeeg ay ay magam ak. ay ay ñu bokk si Daara Fall yëpp daal yal yàlla taxaw bu baax a baax ba li mu yéene ci yoon lépp lépp ak jàmm ak si Daara Fall waaw bu sëñ bi nekkoon nag dina gën a dina gën a kii noonu man nag mun a mënewul wax <laughs> di sa di sa waxaat di lépp moo moo moo waral lii <laughs> waaye ko ñu bari sax wala nga waxee duñ ko gëm waaw kon ñu ne sant bu baax di sant bu baax nag ngeen yàgg ko taxaw yàgg koo ànd loolu seen tubaab seer seer sàkko seer sàkko jërëjëf jërë ngeen jëf ngoog jëf ji Cheikh Moustapha Sour Mame Mbène Ndiaye teg na ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Mourtada moom sëñ Abdou Sakkour Cheikh Mouhamadul Mourtada fas yéene koo teg ci loxol Cheikh Mouhamadul Fadal Cheikh Mouhamadul Fadal jébbal ko euh, sëñ Mouhamadul Mountakha Mbacké allahumma salli wa sallim wa barik faal njag nga ñaan ñu yëkkati jotaay bi jërë ngeen jëf